أحمد على محمد عليه خير الصلاة بسمدي ربي يا أحمد على محمد عليه خير الصلاة بسمدي ginnaaw bi ndaje moom mu jeexee ci la forum sur les intègres bi tàmbale ci njiitul sëriñ Abdou Aziz Mbacke Madialis waaye laata ñuy dugg ci biir waxtaan wi sëriñ Cheikhouna Mbacké ibnu sëriñ Baara di doon ci xalifa bi te jiite commission communication et culture bu comité d'organisation Magal Touba 2009 te jiite ba tey cellule de communication du xalif général des Mourides jël na fa kàddu di gën a soññ mbooloo mi fi teew ngir ñu farlo bu baax ci liggéey bi te ñu xam ne xalifa bi mu ngi leen di ñaaral tey xaar seeni xalaat yu mën a jëmale liggéey bu sëriñ Touba bi mu jiite ak naal yu rëy yi mu ci am te fas ko yene and ak mboolem talibe yeb ak jullit yëpp lii la serigne Seexuna jot a wax ci jotaay bi. kon ci turu serigne bi ma ngi len di nuyu te di len sant di leen gërëm te la xamane serigne bi ñu len di ñaanal ba liggey bu rafet bi nga xamantene bi bii ngeen sumb ngeen am ci ndam te am ci ngërëmu sëñ Tuubaa ndax comme ko serigne ci waxe rek ba ci dem lañ ko doon présenté wat serigne bi. Euh, surtout livre bi nga xamante bi moom la traduire ci anglais bi masala bi jinaan bi def nañ ci ay faral def site bi léegi sëñ bi ñu xamal ko liñ ci yéene ak seen daje mi ngeen di daje euh, fi ngeen ko bëgg a yeggale mu rafetlu ko ne itam dina ci jàpp bu baax kon loolu rek moom daanaka mu ñu fi daje comme ni ko suñu esti wax jëri mënu ko répété waat waaye keroog bi nga xamante ne bi euh, ñi ngi def réunion bi pour préparer ko dama leen wax ne dañoo bëgg lii ngeen di sumb eh, nga xamante ne bii ci yoon wi la jëm eh, ñëpp bokk ko ngeen def ko comme mu seen toolu àllarba te loolu defe naa ne bu eh, xam-xam ak koom-koom ak leneen waaye mën a jàpp bu kenn ku nekk jëlee fànn ga nga man nga def ko ci service yoon wi bu yàggee la nga xamante ne bii sëñ Tuubaa sawoon nañu ko bu yàgg te dama koy joxe exemple mu jumaa ji biñ koy def moyens yi na difficulté yi woon na waaye comme sëñ bi ko santaane teg ci aw yoon bañ mën a sukkandiku suñu bopp ba def ko te soxlawuñ ci jamono sopp ko loo xamante ne bii luy yombal ak euh, euh, bi ci jamono ak di ñu gën a may sutura gën a euh, mën a may ay jumtukaay yuñ mën a gën a tasaare li xamante bi mooy jàngale sëñ bi ak li nga xamante bi moom la bëgg ñu mel ko loolu defe naa ne bu kenn ku ne jëlee fa nga mane nga jox ko sëñ bi eh, comme ni ñu ko waxee yëmul rek ci ñi nga xamante bi ñoo ñoo xarale ci tig mais ñi nga xamante bi dañoo xarale ci koom am na eh, jéego duñ ci def sànq ak ñi nga xamante dañoo xarale ci wér-gu-yaram ak environnement ak ñu xarale ci lépp ndaje bi ak bunt lay doon rek pour tàmbali mu mën a yegg ci nag euh, dajale ñëpp nga xamante bi lépp nañ ko soxla te am ci ay way xarala yoo xamante ne bii jël nañ seen xarala teg ko ci service sëñ bi ñu mën a booloo waxtaan ba euh, jàngat li nga xamante ne bii xëy na mooy liñ defe ne euh, loolu dina doon seen participation ci li nga xamante ne bii mooy liggéeyu sëñ bi ñu tënku comme ni ko sëñ si waxee waxtaan ci ak ñi nga xamante bi ñooy kilifa yi eh, ba ñu ñu ñu joxoñ léegi ñu mën a féete ci defe naa ne comme ci mondialisation lañ nekk ren eh, fi ñu tàmbalee muy eh, le TIC nga xamante ne bii màggal gi niñ ci góorgóorlu ba ñu war koo mën a génne bu fépp foo xamante ne bii donc ak taalibe nga wala nite nga fa nga nga mën cee jot loolu gannaaw yàlla ci ñi nga xamante ne bii ñoo jël seen xam-xam def ko ci eh, teg ko ci eh, donc ci réseau sëñ bi moo tax loolu mën a am site bi ñuy wax itam ñooñu loolu moo tax mu mën a am parce que dañuy tàmbalee moo tax ñu ne dinañ def lii mu doon misaal moo xamante ni bi dina wane ne mën naa nekk waaw loolu ñu naan you ah, can nañ ko kon nag buñ ko mënee liñ ci des li ci des mooy ñu jéem ko buñ ko jéemee defe naa ne ci kattanu yàlla ak eh, ndigali kilifa yi nga xamante ne ñoo leen topp seen gannaaw euh, dinañ mën a def li nga xamante ne bii lu euh, am waxuma la yoon wi waaye lu amal ak mbir yëpp ak àddina bi kon bala maa guddal rek li ngeen war a waxtaane bari na delluwaat leen jot li ñaanu sëñ bi euh, te xam ne li ngeen def lépp yëg na ko xam na ko na ko te mu ñu ci soññi ci ñaanal ñoo ci jàpp ba tax Euh, xalaat yi ñu mën cee tàmbalee concrétiser euh, gannaaw yàlla sëñ Assis ak euh, ñi ko àndal ñëpp ñu ngi leen di gën a sant di leen ñaanal te di leen xamante bi fépp fu ngeen ci nekk wala ngeen toll ci man li ci gën a doon sama sama sas mooy di ko yeggale ci sëñ bi di ko gën a xamal yéen li nga xamante bi mooy seen yéene mu duñu ci jox ndigal di ñu jox ñaan te bu soobee yàlla loolu dinaa ci ànd ak yéen ba ba ba euh, mu yegg fa nga xamante bi donc foofu lañ ko bëggee kon mu delluwaat rek di sant ñëpp di ñaanal ñëpp euh, ci turu sëñ bi di leen xamal ne euh, na ngeen ko tàmbali ci bismillaahi rahmaani rahiim yeggaloo ko ci alhamdulillaahi rabbil comme ni ñu waxee woon comme sëñ bi moom léppam mat na ak ñaanam nangu na kon nañ fexe ba bokk ci ñi nga xamante ne bi ñoom la ñaanuk sëñ Tuubaa nangoo ci ñoom lool rek loolu moo ci des kon jërë ngeen jëf نانكو تامل في الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته